soppee Gambian Talents TV yi man leen ñu nuyu nag ku nekk sa tur ak sa sant daal ah, di leen jaajëfal bu baax a baax a baax si topp bi ñu ah, ba te yi nag comme ni ñu koy faral di advertise rek Coffee Mug ñu ngi say yëngatu a di tiisaat ñu ngi say yëngatu ah, waaye Gambian Talents nag ñu leen xamal bëriwut ba tey nag ñu ñëw toog fii di leen wan ne apart from reporting writing ak li nga xam ne moom mooy defar Coffee Coffee Mug ak t-shirt seet leen li nga xam ne moom mooy baana bi nag am am solo ba bugg a dee muy talent show talent show bi nga xamante ne nag suñu yaay boobu di gën ñoo rock skill academy ah, moom moo organise talent show bi nar a wari xale yi seen ah, xarañte ak lu gay di def si biir réew mi ak xam-xam ak maakaama bu leen yàlla may ah, nar koo génne rek expose ko si nit ñi dooleel leen mu nekk lu am solo a Ndioro nag bés bi nag di on the 6 of April on the 6 of April di xewee nag fi xam ne mooy Hyperlink Hotel Hyperlink Hotel nag ku foofu mooy xayma yoo xam ne ngeen dem fa nag ah, su xale da nga dugg biir Gambien Gambien yaa ngi def lu am solo ñu ngi def lu am maanaa ngay njooro a si biti yi nii ba tey ci biir talent show bi ngay ah, njooro nag dafa wax ne ne moom nga éloquer si xale yi rek pour ñu étateel leen déedéet waaye ba tey dafaa indi ki nga xamante ne ñoom ñooy artiste Gambien si biir réew ah, mooy waay bi way bi nag na faa teew def ba mu baax nga ñëw am kii nga xam ne moom mooy ST di biir Kaama Boye borom salutu nga ñëw am Mr Anything Anything di biir Faa ah, moom it ah, lekk naanu ci wëy rek lay yëngal moom it tamit nar faa dem def ba mu baax nga am borom baatu kurus bii nii di Baraama ah, Baraama tamit nar teewee nar teewee def ba mu baax entertainment ñi ñëpp nekk fi nga xamante ne ni moom mooy Gambian Talents TV nekk suñu boot ceeya bi ah, mu nekk lu am solo mu nekk lu am maanaa ah, gis nañu tamit ñu yëngatu si lii rek mu ne yéen tamit foog mu xool yéen naka ngeen mu nii ak fan nga naan a man mu jox ñu mu jox ñu contrat bi nag neen ko moom si baana am solo bi baana am maanaa bi nii ah, baana bi ku ko gis di nga xam ne ku ko doon defal loxoom set na te si biir Gambian Talents fii la nekk moom itamit lay waar ah ba tey di leen wax ne rek képp ku bugg a façon baana bu mel nii ah bugg a yeneen façon baana am sa programme sa ngénte sa ceeb wala yeneen ak yeneen wala nga soxla ay billboards ak yeneen xoolal nga leen tamit stig rek ñu defal la lu mel nii wala defal la sax lu raw nii parce que ñun duñ xaar duñ tay tey duñ daw luñ poussé ñaari place léegi nag moo def dara lu bàyyi ki nga xam ne mooy Fat Samba mu indi leen flyers yi indi leen ticket yi ticket sax dañ koy defar mu ah bu ma lii nan la Gambian Talents a leen koy wan tukusi bu na la sànnuree biir Gambian Talents ngeen ko amee gis ngeen ko ki nga xam ne nag mooy anti FCM Guèye di Guèye Njoro académique eh, moom nag ki nga xam ne eh, tubarfakala macha allah eh, si yu baax rek la ma ñëw pétunize leen yéen ko gis li ay flyer la mu leer lool soo nekkee ba Banjul taxaw Serekunda sax di nga gis flyer lan moo ko leeraayam boo si soxla size boo si soxla Gambian Talent promotion dina lañ ko defal ana gars yi ana sama gars yi takk ko duñ wéegi mu ngi nii egsi na nii rek la soo leen amee seen ngénte seen takka yéen ñi nga xam ne yéen a nekk si diaspora bi balaa ngeen ko oode biir Amérique Angleterre di ko indi seen euh, li nga xam ne mooy policy di diis bu leen def loolu loolu xewatu Gambian Talent moo leen génne si coono yu bari noonu gis ngeen ko de ticket yéen ñu am seen programme si yéen a ngi gis yaa am intelligence sa def lii de mu ne ko moo def lii de ticket si nag doo ko mun a piraat fen fen nga ko dul piraat ticket bu nekk ak nambaam ticket bu nekk ak nambaam soo ko jëlee kenn du ko mun a sàcca ba tey piraat ñu bëgguñ piraat yéen a ngi gis Gambian Talents daal si rek la muy tax ah, kon nag mbokk yi wii di gis bokkut si ñu bari bari dañ faral di wax xanaa ngeen ay mook rek nga lay defar ay t-shirt rek nga lay defar Gambian Talents bi ne déedéet defar baax gis ngeen maanaam comme naka lañ ko ay dawoon yi different size am na size boo si bugga bu ndaw bu mag bu la si neex rek ñu jox la ko foo si buggee rek ñu jox la ko ba pare nag lee na nag mun si ñun time lu important la si ñun duñ bëgg nga am sa bés every minute nga ñoo call soo bëggee ñu defar different sample send la ko dinañ la ko send 78 33 524 78 33 524 ku am sa bés rek ñëwal ñu bés ba neex Euh, kon nag euh, yéen nga xam ne nag yéenay jànq yi euh, di gentleman yi di boys yi di koto yi ah, di ñi nga xam ne nag ñuy xale sanse xale bëgg lu baax xale def lu baax dama ne bés bi jot na de ay nu nga ko waxee rek ah ne ma ne six foofu noonu si high college opposite fi nga xam ne nag ah, mooy Maroon supermarket ah, foofu noonu si Sénégal bi mu ne next to fi nga xam ne nag mooy Palma Beach soo la ñëwee foofu noonu nag wala nag te high college rek mu wanal leen ko kon nag xale ngeen yoo rey Skill Academy dina la defante si yu baax artiste ñu fa de dama ne Gambia ku waxul ST waxuloo kenn du kaamu booyoo dama ne ku waxul Big Faa borom anything no anything ah ku waxul dara nag laajte ma ba xaama borom baat bu neex bi borom baat bu tuus bi borom sansakat bi ki nga xam ne nag xale yu jigéen ñi moom dañuy wër dama ne borom dina baa ngi waaye lii la moo uyoo kooku namul dara te it tus kon nag yéen yi nga xam ne yéen a na ma sanse yéen na ma programme talent show a ñu wax dañ nar a wane suñu talent xool leen li nga xam ne moo nekk si baax na xoolal leen li FC ni mu wane génn yoor lu nga gis ay leeta la ñuy de ma ne leen jël rek décorer ko ak li nga xam ne nag euh, mooy euh, suñu euh, cosaan boobu noonu kon nag yéen a ko gis kii nag ab jigéen la ne gis ngeen ni mu génnee soo ko gisee nga laajte kii ban dëkk la waaye ci biir Gambie lañ koy defaree xoolal leen ma aada ak cosaan ma ne ko mu ngi nii feeñ na ma ne ko mu ngi nii feeñ na day yor skill académique yéen noo leen na ma yéen maa lay jaamale yéen ma ne ko maa lay jaamale yéen xoolal leen ma ko aada cosaan jël li nga xam ne mooy lii tamit def ko nii si baax bi décorer ko jaaru bi kon nag moo tey dama ne rek duñ leen mën a wax yëpp de yëpp duñ leen ko mën a wax toppaleen bi si bési programme bi année six biir fi nga xam ne nag mooy high college ñu nag faa toj ma ne ko nekka la Uh, powered by ñi nga xam ne nag Yaw's Creation kon nag bés bi bési bés la bés bii mooy bés bu ñu tiddi wóor man daal ku fa dëggaal nee ne ma maas